lu tey te nguur gi waxoon ñu ni def na lu tollook euh, lu ëpp sept cent cinquante milliards euh, jàpp sept cent soixante six milliards euh, ci mbirum mbënd mi waaye ba tey saa su tawee ñu dundaat lu ne mel. gis nga nee nga sept cent soixante six milliards am nga loolu mooy njàqare bi Sénégal yi war a am tey ñu jël alal bu ñu toll. 766 milliards ñu tàmbale ko 2013 mu waroon a jeex 2023 ku nekk waroon a tëdd sa kër nelaw yaakaar ne bu tawee. boo xëyee di nga taal sa oto normalement xëy dem waaye li nga gis mooy 2023 mu taw pour nga génn sa kër dem sa bureau bi nga doon def 15 20 minutes il te faut 3 heures de temps parce lu tax li ñuy waxoon ne def nañ ko ci kii bi dafa mel ni dara def ci ko ci et malheureusement tey loolu la ñu gis def nañ ci xaalis bu bari ay parlementaires ñëw nañu def nañu nee nañu def nañu ay def nañu enquête parlementaire bind nañu ne ça ça s'est bien passé mais tey lu ñu gis mooy mbënd baa ngi fi gën a ne gàññ géejuwaay gële ma jugee caaro gële ma jaar Pikine bële ma jaar fii Mermoz fii sax da gis même Almadies bi da gis ñu ne dafa inondé mhm. parce li ma wax ne réew mi um, uh, nguur gi fi ñu nekkee loolu la war a bàyyi tey dañu jël miinal nit ñi ay chiffres. mais ku kuy tàppale dina génne 766 milliards. loolay wax ji da nga milliards ne yow ngeen mbënd bi day jeex fii ci Sénégal et li ñu gis tey dans toutes les grandes villes ba mu mhm. tawee dañoo dañoo dañoo dañoo inondé tey Dakar la ñu wax mais y a mais y a mais deux semaines Touba ndox bi dafa fees del et ñaata centaine de milliards lañ wax lañ fa def pour ndox bi dem defuñu ko xam nga nguur gi li ñu bëgg jël ay jël alal def ko ci li nga xam ne nit ñaa ngi koy gis ci kaw tabax ngay immeuble tabax ngay stade tabax nga leneen ak leneen ak leneen waaye li ñoxal askan wi li ñu war a def li balaa loolu yëpp di am xaalis bi ñu wax ne génn nañ ko ñun dañ koy douter ne est-ce que xaalis boobu réellement def nañ ko ci ndax 766 milliards foo ko def ndox war tax sotti ba mu jeex nit génn gis ko fi si koñ bi malheureusement ce qu'on tey mooy li ñu wax gis ñu ko nit ñaa ngi gën a sonn tey en 2023 euh, rôle rôle assemblée nationale bokk na si caytu li nga xamante ne moom mooy politique yu gouvernement bi def waaye bi ñu fa yónnee seen ndaw li ñu wax mooy lu bëri ci li wax def nañ ko te euh, euh, groupe boobu demoon fa bokk na ci ay député yu nekk si pouvoir waaye ñu nekk si ku jégi loolu mooy jaaxal sénégalais tey xam nga tey nguur gi fi nekk dañu tàmmal loolu tamit tàmmal génn ñu ay rapport parce que euh, tout le temps nga dégg ay rapport ñu ngi lire ay rapport nii na ni ngi nii baax na Sénégal kenn sonnul Sénégal kenn xiiful Sénégal liñ koy projet yi ñuy joxe ñu ngi koy teg ci yoon waaye projet bi ñu ko joxoon bi ñu ko tegoon ci yoon yaakaar nga ne tey nit mbir mi dina taw mbënd bi amee nii gëmuma ko donc dafa am lu sooxe lu bari dafa am liñ ñuy gëmloo te loolu moo amul ndax loo mën a wax ci ces chiffres loo mën a wax ci sa rapport te man tey bu tawaatee ndakaaru njaay kenn du mën a bouger loolu dinaa laaj yow xaar alal bii ñu la joxoon ndax réellement def nga ko ci waaw wala gis nga tant que tappale boobu jeexul damay wax sax nguur gi tappale bi ñu mënta def moom léegi ci ci fin de régime lañ toll juróomi weer la te yaakaaratuma ñu def fi leneen li nga xam te ne war nañu mën a réglel li ñu li ñu li ñu làmboon ak ñun ñoom 12 ans yi di jàll. Euh, gouvernement Amadou Ba na fii créé na fii di ministre auprès du ministre am na benn ministre boo xam dañ ko déjee spécialement pour mbirum inondation mooy ministre auprès du ministre de l'eau chargé des questions de l'inondation jox ko budget jox ko ay ay cellules def ko ay lépp. teewul tey dafa tawaat nit ñi kenn mënta génn sa kër. ku def loolu am na yéene faj. xam nga dafa am lenn dafa am yéene. Mm-hmm. ak li nga bëgg a def réellement xam nga li nga wane ni yéene la bëgg naa ko def waaye est-ce que réellement yaa ngi ko def est-ce yaa ngi teg ay jalons yi nga xam te ne war na dalal as xelu askan wi nii yow yaa ngi ci. defuñu ko te loolu la ñu tàmbal te tey dañuy wax ci inondation bu ñëwoon ci beneen aussi nga gis loolu. dañuy présenter ay affaires yu rafet mais au fond defuñu ko ndax li soxal askan wi dëgg-dëgg soxal la ñoom seen mbir bopp moo leen jax tax a jóg été malheureusement bu tawaatoon suba aussi nga amaat li ñu dund démb. embouteillage yu sonal la kër yi di inondé koñ yi di inondé été ñu ne Sénégal def nañ fi 766 milliards pour inondation dañ fi. waaye dëgg ci ay euh, nguuru Macky Sall li ñu teg moom mooy plan décennal ngir dindi fi inondation yi plan décennal bi ñu ngi si euh, njeexital gi atum 2023 réglé wul problème bi lan nga jàpp ni moo war a problème gis nga euh, gis nga mbir bu amee booy booy booy gérer dara. Mhm. da koy xool da nga teg problème la parce que booy gérer dara aussi dafay fekk dafa am problème moo tax ñu ñëw ñu ne kaay solution ñun suñu problème ñun problème bu ñu am mooy problème mu ndox ndox bi taa fii ci grande ville parce que grande ville yi kenn bayu fi ñun république développée dañu ne inondation bii nii problème la waaye ñun dañ koy transformer yóbbu ko en opportunité mooy lan ndox bi fi nekk dañ ko war a drainer te mën nañ ko drainer yóbbu ko ci biir Sénégal ci biir fi nga xam ne foofu la ñuy bayee mu régler ñaari problème mu régler problème inondation parce que li ñu gis tey mooy bu tawee nguur gi li gën a yomb la ñuy def dañuy pomper rek jël sànni géej ñun boo nekkee boori géej waay géej waa lañ dëkk dañoo jege géej bu bu taawee bu inondé dañuy pomper sànni ko géej mais ndox boobu ñun dañ ko soxla parce que ñun ñu ngi wax ne Sénégal am nga di pour cent de terre arable yow foo dem ci Sénégal war nga fa mën a bay boo génnee ci grande ville mais lu tax mënuñu fa béy ñu ne parce que ndox egg si wu fa te yaa ngi ne gàññi biir ci ville yi teree jël ndox bi def ay système de drainage yóbbu leen ci foofu noonu ñuy béyee créer ay nappe artificielle. est-ce que yomb ko waxee. mais gis nga gis nga li ñu investir. 766 milliards. foo ko def ci projet mu ndox waaye yéene bi nga wax sànq ak ndax bëgg nañ koo def. Mhm. est que jëluñu alal bi def ci leneen. loolu aussi c'est des questions qu'on va se poser parce que alal bi ni toll mënoo ko gëm ne jox nañ leen ko te ndox bi baa ngi ci ba tey donc ñun dañu ne loolu bu amee am na tey bu ñu ñëwee loolu opportunité lay nekk si ñun pour déjà ñu régler problème inondation bi. créer ay emploi ci loolu noonu te à partir de là def lan poser lu ñu yu ñuy waxee système agricole permettre sénégalais yi tey du premier er janvier au 31 décembre ñuy bay ndax am nañ naaj Sénégal am nga naaj 60 365 jours 365 jours naaj bi day wàcc am nga suuf soo bayee ndox bi ndox bi doon manqué ci yenn zone yi nga jëlee ko ci kii inondation bi drainer ko yóbbu ko fa nit ñi bay dina tax tey sénégalais yi xale yu bëri du mën a ñëpp mais ñi bëri ñi doon jugee ci parti yu ñu doon béyee te amatuñ lu ñu béyee jël mbëkk mi di dem toog nga jox leen ay instruments ñu mën a bay toog dundal seen bopp dundal seen njaboot et participer au développement du Sénégal donc ñun lool dañ ko proposer au Sénégalais campagne agricole bi ñuy wax ni nga xam ne day yem ci juillet ba octobre dañ koy dindi mhm. système la ñuy indi te système boobu li ñuy li muy laaj am nañ ko mhm. suuf naaj ak ndox Euh, pour pour pour indi euh, bàyyi goo xamante ni industrie lay doon yemul ci mbir moom rek il fa faudrait aussi euh, ci wàllum machine yeeg mbir yu mel ñu gën koo jëmmal mais te gis nañ ni nguur Sénégal am na ay jéego yu mu def ba campagne bi ñu génn dégal na si cent milliards mais foofu bu ñu la déggee day mel ne nguur gi deful dara. xam nga nguur gi 2017. la ñu promettre ne autosuffisance en riz. 2017 ak léegi ñaata at. 5 ans. bientôt 6 ans la ñu waxoon. keroog maa ngi déglu ministre de l'agriculture bi démissionné ministre de ministre de l'agriculture démissionné Aly Ngouille mhm. muy wax ne pour ñu atteindre l'autosuffisance alimentaire c'est fii ak 5 ans il faut de 1000 milliards par at moo ko wax mhm. donc ça li ñu doon wax kon avant ay tappale la woon alimentaire ak en riz xam nga xam nga tey moom sax beneen terme sax la doon la doon la doon utiliser fàtte naa terme bi mu wax mhm. ça va au-delà de sax de loolu tey dafa ne moom il le faut il lui faut 1000 milliards par at pour ñu atteindre lool ceeb bi ba tey ñu ngi jéggaane ceeb blé moom ba tey ñu ngi jéggaane te pourtant fi ñu ko jëlee di ko indi ñun ñoo leen tane ci ay jumtukaay yi ñu war a mën a am ci ay tout naturel ñun ñoo leen tane ci suuf ñoo leen tane ci naaj ñoo leen tane ci ndox ñun fa lañuy jëndee di indi donc ça veut dire que volonté bi bi nguur gi wane loolu la amul tey Sénégal ñun suñu programme tey gis nga dañu ne dañuy soppi Sénégal def ko PME Afrique de l'Ouest gis nga Sénégal kañ nga fi gëj a dégg ñu ne inauguré nañu usine li war a transformer li ñu war a jëlee ci mbay mi parce que tey mbay mi même yu bëri boo ko jëlee fii danga koy exporter yóbbu ko ci ñoo ñu transformer la ko indi jaayal la ko parce que lu tax yóbbuwuñu seen indiwuñu nguur gi fi nekk tey yóbbuwul ay ay option ci loolu moom option am feneen la ko def ñu ne dañuy indiwaat loolu yëpp bu ñu régler problème inondation bi mu indi créer ay problème emploi dañuy jëm nag ci industrialisation boo béyee am yoo jël mën nga ko transformer fii nit ñi dundee ko ba mu des ñu jël loolu soo ko exporté mu dem. problème emploi tudd nga ko ñaari yoon bi ngay wax ak euh, ci bi ngay répondre ci si question bi muy problème boo xamante ne bi c'est central euh, ci gouvernance mondiale njiitu réew mi promettre si lu bëri def si lu bëri euh, malgré tout les jeunes tudd nga ko sànq ñenn ñi ñi ngi màngaan di jul jël jël mbëkk mi ngir wutali Europe est-ce que lépp dañ koy jël rek teg ko ci ginnaaw nguur gi. gis nga nguur dafa am looy lu war a mën a am ci réew mi nga nekk yaa ciy teg new ñu état bi mooy embaucher xale yi loolu mënta nekk. mais il faut nga teg ay jumtukaay yi nga xam te ne nit ki bu duggul ci ci ci ci sur une structure formelle moom dina auto emploi dina mën a créer emploi boppam. projet de financement yaa ngi fi. mais projet yaa ngi koy dégg. d'ailleurs da ngay dégg ñu ne la projet de financement am na mais ñan la ñuy financer ñun ñun ci ñun ci ko ci ci dañuy dem waxtaan ak sénégalais yi. ñan la ñuy financer ñi bokk ak ñoom la ñuy financer xam nga loolu lay problème tey Sénégal nga ne yow am nga 70 pour cent de fukki sénégalais yoo jël juróom ñaari ay ndaw lañu nga ne yow moyenne d'âge du Sénégal bi 19 ans la donc ça veut dire que yow ndaw yi ñoo ëpp Sénégal fuuf nga ne yow da nga ñëw pour régler problème ndaw yi et tey ba tey centaine de jeunes démb rek am na benn embarcation bu ñu jàppaat bu doon def 170 migrants chaque jour nga dégg ay centaine de jeunes yi génn di dem nguur gi lan la ci def ci loolu pour régler ce problème là bu ñu xëyee nañu jox nañu DER na ay financement ñan la financé bëgg nañu ko xam est ce que ñooñu noonu bu ñu leen dem dinañ dem dem uti passeport même bu jaaru ci géej gi dem Nicaragua daj fa lañ fay daj ñëwaat est-ce que yaakaar nga ne ki ñu financé mu war a toog liggéey am am liggéeyam menuisier métallique bi toog yaakaar ne bu ñu ko financé normalement war na mën a jënd ay jumtukaay yi nga xam te ne a mm-hmm. ne bu ñu ko joxee loolu dina dem jël jël risque dem ci géej gi yaa xam ne mm-hmm. mën na fa dem plus il a plus de chance de mourir que de vivre donc nguur gi dafa échoué ci la ci la politique yaa ngi naan financement kenn financé du dem mais financement am lu ko jiitu muy tàggatu xam nga tey et éducation déjà. Mhm. ñun suñu système éducatif déjà parce que nguur gi aussi am na lu mu ñu ci waxoon dina ko soppi adapté ko ba tey gisuñu ci dara. carte carte éducative bi carte électorale bi nag euh, scolaire bi euh, avancer na quand même. mais lan nga gis tey Assane ndaw Sénégal mooy dugg école dem ba université mënuloo la defal dara tey loolu ngay dund tey loolu laay dund nga ne yow ñi jàng ñëpp. balaa balaata ñuy mën a liggéey faw ñu dem ba am master réew du doxee noonu moo tax ma ne système éducatif bi dañ ko war a pen repenser waat gis nga ñëpp mënuñu dem ba bac ñëpp mënuñu dem ba bac plus N wala bac plus is mënta ne dafa am loo war a indi permettre yow sa ndaw ñi fi nekk à chaque certain niveau bu am nit ki war a mën a jël ne bëgg naa fii laa yem am na lu ñu ma jàngal ma war a dem auto bu ñu ma financé ma war a dem dem defi sama auto emploi mais loolu nguur gi def. moo moo waral ñu teg les les les centres de formation dans euh, presque 46 euh, départements yëpp euh, commencé nañ fa taxawal ay centres de formation su ngi jëm si loolu. mais ana résultat bi tey ana résultat bi yaa ngi wax ndaw yi ana résultat bi man dama bëgg ñu ne ma def nañ nangam ndaw yi ñu ngi nii ndaw yee buggul bu ñu ma xooloo sama naw mm-hmm. waaye ndaw bëgg waaye gisuñu. moo tax tey li gën a yomb la ñuy def mhm. wala bi gën a risque sax laay wax la ñuy def mhm. mooy dem uti ko feneen fi ñu ko yaakaare mooy Eldorado en Europe aux États-Unis parce que lu tax li ngi leen lu waroon a tegal en terme de d'infrastructure li nga waroon a tegal en terme d'accompagnement defoo ko donc ñoom ñu ngi tous ñu ngi surtout sur le clientélisme politique même yaay gis ma jël cas de poste poste 4500 employés fa waa ji ba mu fa ñëwee recrutement clientélisme pur et fa def am na ñoo xam ñu war a ay caissier mu ni sax loolu du ay tappale loolu bu ko ñeneen ndaw yi déggee nga te nga teen lu ñuy def dañ ne man maa ngi toog fii di xaar yor samay diplôme kenn employé mu ñu employé keneen parce que part nangam la far damay préféré dem uti risque jël sama passeport dem ni Nicaragua wala jël dem sama trois cent 300 cent mille dugg ci géej gi dem yàlla xam donc loolu mooy wane ne le régime actuel dafa échoué sur la politique de l'emploi et loolu mooy la réalité boo duggee suñu koñ yi dugg ci mbedd bi xoolal. mais du loolu la chiffres yi di wax ndaxte moom euh, déggoon nañu des centaines de milliers d'emplois euh, bu ñu jëlee chiffre ANSD wala yeneen chiffres yi da ngay gis ne atteindre nañ ko wala jege nañ ko. moo tax ma ne euh, nguur gi daf ñu miinal ay chiffres nag ndeysaan daf ñu miinal ay statistiques ay chiffres yu doy waar buñ la buñ la ko buñ la man ñenn ñi leen déglu waa nguur gi bu ñoom ci ay débat ci ay dama man ñii est-ce que ñoom ñoo nekk Sénégal wala man maa nekk Mauritanie parce que man dama ñii li ñuy wax nii est-ce que réellement ñu ngi ci Sénégal bu ñuy taxaw di ma wax ay chiffres tey ba ñuy wax ne boobu sax gën gënnaat na ci ba ñuy wax ne Prodac bi fa waroon a liggéeyloo 320 000 jeunes finalement ba ñu ba coow li bëri ba coow nit ñi intéressé aussi nit ñi xam ne ne 6 000 jeunes sax liggéeyuñ ci donc parce que loolooy réalité bi il maquille les chiffres mais li li ngay dund ku nekk loolu mën na ko defal soxlu ANSD la ko wax yow yaa koy xoolal sa bopp yaa ngi ci quartier yaa ngi bay frère am ngay sœur am ngay xarit xoolal ci fukk ndaw ña ñaata ñoo ciy liggéey boo demee jour ouvrable ngay dem sa koñ jaar fa xool ndaw yi ci koñ bi la ñuy di ataay di naan di naan ataay di tox loolu la ñuy def parce que amuñu leneen lu ñuy def parce que on leur avait promis des choses qu'ils n'ont pas vues et ils ont perdu espoir et malheureusement quelles que soient les statistiques qu'ils puissent donner ñun on aimerait bien xam nga on ngi kii nga benn niveau yow looy def da nga koy basé ay chiffres mais da sa chiffre a nga woo ndaw yëpp jour ouvrable ñëpp ngay gis pratiquement ñi ngi si gis ñu ñu ndaw ñu néew ñu ne la dañoo liggéey ñu néew la ñu doon donc loolu ressenti la sénégalais te tey nguur lañ ko fi teg pour mu indi ressenti wu sénégalais bu positif malheureusement le ressenti aujourd'hui en terme d' emploi jeune c'est un ressenti négatif nit ñi gis nañu ndaw ñi liggéeyuñu moo tax ñu jël seen alal li ñu am as tuut jël mbëkk mi dem uti ko feneen. Mamadou Aw mooy fàttali ni yaay coordonnateur bu euh, cadre de euh, de la de la République des valeurs euh, nekkit coordonnateur parti boobu ci département de Guédiawaye ngay acteur politique ñu wax ci li xew Ngor li si doy waar mooy daanaka dégguñ ci benn acteur politique mu jëy yàbbi ci Fatou Ndaw soos nga xamante ni contrôle d'identité moom moo jur jëye googu. man ba ma ko yëgee nag dama am lu ma métti damay jaal déjà ay njabootam dégg naa ne sax bàyyi na ñaari bant. Mm-hmm. Euh, di njaal jaal aussi ay waajuram ak yow waa koñam am lu ma métti euh, mu dalaat encore waa Ngor xam nga Ngor ci ay jamono yu yàggul dara mhm. dundoon nañ fi lu ni mel ba amoon ñu ñu fa faatu ci mbirum suuf tey lii amaat ci mbirum encore contrôle d'identité ñoom ak force de défense de sécurité yi ba les populations ñoo doon xeex ak gendarme yi mhm. kenn ku ñu jàpp la ay gendarme jàpp ko mu faatu mhm. tey suba dégg nañu résultat auto si bi joxe ne moor naturelle loolu lañ joxe mais population bi si boppam boo leen déggee wóoluwuñu sax résultat autopsie boobu ñu joxe. parce que lu tax dañ ñu yàgg miinal aussi ay résultats yi ñu jox loo xam te ne nit ñi duñ ko gëm wala nit ñi le lendemain wala le surlendemain ñu indi leneen lu bokkal ak loolu ñu joxoon résultat donc tey dafa mel ni tey dafa am euh, sëy bi dafa tas entre population yi ak force de défense et de sécurité. naka lañ def ba egg foofu. xam nga nguur dafa war a am nu mu doxalee vis-à-vis ak ñi mu administré tey bu fekkee tey da nga ñëw nga jaay doole ñi nga jiite. tey bu fekkee ne da nga ñëw nga non seulement nga jaay doole mais nga wax leen li ma def nii fee laa ko teg te fekk li nga teg loolu du loolu du dëgg ndax li nga ko def sax ñoom gis nañu ne loolu du dëgg ma joxe exemple mars ba mu euh, juin ba mu ba mu passé waa police def nañ fi seen conférence de presse génn ñun ay nervi ñooñu la ñu gis ay forces occultes wane ay vidéo fekk vidéo yooyu sax ñu doon wane ñoom la ñu àndal te ba ñu wane vidéo dañu wane ne population yi moytu leen de ndax ñii nii ci yéen la ñuy dal fekk ñii nii ci yéen ñoom la ñu àndal donc nit ñi gis ne kon ñoom ci manipulation lañu nekk même bu amee manipulation beneen côté finalement nit ñi si population bi le le sénégalais lambda kii croire fan lay taxawee amatul confiance ci moom te day gën di tiit nag parce que léegi di nga toog nga ne ah ndaw si Binta mi décédé yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. contrôle d'identité la woon. Mhm. ñu jàpp ko ma faatu. kon man contrôle d'identité bu amatee naa moytu. Mhm. njàqare tàmbalee am. te yow foo normalement foo waroon a gisee ay policiers foo waroon a gisee ay gendarmes sa war a a ñëw pour aar la mais bu dee yow da nga jàpp ne ñii bu ñu ñëwee mën nañ dal sama kaw ba faat am ci li waroon a am ñoom seen rôle bi ñu waroon a jouer yow en tout cas dootoo ko sentir te noonu yow njàqare mooy mujj am ci yow et loolu c' l' état à l' état de revenir tout ça joxaat ñu confiance nii force de défense et de sécurité pour yéen la ñun li ñu liggéey pour yéen la justice bi nii pour yéen la waaye malheureusement taxawaay bi mooy lépp lu ñu def nit ñi dañuy jàpp ni ñoom lii du pour ñun. Mhm. pour ñoom la et pour c'est pour un groupe ce que crise de confiance boobu ñi ko accentue du les acteurs politiques yi ngeen yi ngeen doon ndaxte euh, quand on parle de manipulation euh, ci ci làngum politique la ëppee jamono ji. waaw xam nga li ma wax rek mooy euh, manipulation bu xasee ba tàmmale ci benn boor ku nekk da nga ut ne pour nga nit ñi gëm la foo nga manipuler et tey nguur gi. même acteurs politiques yi bu ñu defee seen i manipulation mhm. parce que acteurs politiques ñoom géré wuñu dara gis nga politiciens yi ñun ñu nekk kenn jox dara. mais ku askan di topp ku mbooloo topp war nga xool li ngay doxalee. mais léegi nag nguur gi fi nekk moo waroon a dalal xel nit ñi ci loolu xam nga booy poser ay actes nga tey justice bi nga yor quel li ci nit ñi mën a wax man lu yoon laay dogal mais li ñu mën a gis mooy lépp loo def yow bu dee ku bokkul ci yow rek rëq nañ diggam bu dee ku bokk ci yow kenn laalu ko foofu fan la confiance di mën a amee loo mën a def après dañaa naan ñii ils sont en train de manipuler. la justice ils sont en train de manipuler les forces de défense et de sécurité finalement nit ñi dañuy dem ba duñ ko gëmati ku leen wax leneen mën nañ ko jël mën nañ ko bañ a jël mais yow en li ngay wax duñ ko gëmati acteur politique yi c'est vrai waruñu nekk dans la manipulation parce que tey ñun ñoo nekk opposition suba ñun ñooy nekk pouvoir loo def tey ëllëg day dalaat sa kaw ñun nag au niveau de la République des valeurs heureusement kenn xamewuñu ci ñun au contraire sax dañuy fu ñu bokkul waaye ñun jàpp ne posture républicaine dañ koy am nguur gi boo nekkee ci say manipulation dañ la koy wax li nga def ni teguloo ko ci yoon opposition bu nekk ci ay manipulation dañu naan li ngeen def ni tegu leen ko ci yoon ndax sóor leen ëllëg gis nga ay population boo leen nekkee boo leen di xeexal parce que ñun dañuy def ni xeexaluñ suñu bopp askan wi lañuy xeexal da nga leen di wax dëgg teg leen ci yoon ne leen lii mooy dëgg ñu gëm ko loolee dëgg ñu bañ ko gëm loolee dëgg mhm. te dëgg toujours mooy mujj ëllëg dinañ xam ne li nga doon wax dëgg la donc manipulation de part et d'autre warul mais malheureusement le place li mu mën a def tey fu nit ñi tolloog moom mooy nit ñi ñoo amatul confiance ci ñoom liñ ñuy jox ne looloo am malheureusement. Euh, bi ñu dalee tàmbali waxtaan ba léegi daanaka ay jafe-jafe rek la ñuy tudd fii ci Sénégal euh, malgré tout Sénégal googu ngeen bëgg a waaw xam nga Sénégal bii moom mënuñu def leneen lu dul jéem a téye Sénégal ndax ñun Sénégal dafa ñu jox lépp man fii laa juddu fii laa màgg fii laa jàngee fii laa tabaxee kër fii laa dëkk fii laa dëkk tey dama doon waxtaan ak sama benn jaay ñuy waxtaan wax ma lii mu ne ma yéen politiciens yi am ngeen fit lu tax ngay politique ma ne ko nijaay xam nga man la laay la laay daw fii fanweeri at ci kanam sama doom màgg fekk Sénégal nekk ci yeneen loxo wala mel neneen mu ne papa pourtant yow ba nga am ay sa age waroon na jël summeeku xeex ngir sa réew est-ce que def nga ko waaw wala déet boobaa la laa koy wax damaa toogoon doon spectateur déedéet sama ngor mayuma loolu ñun devons va s'investir pour ce pays parce que ce pays nous a tout donné et on doit donner à ce pays tey dañ koy defal suñu bopp def ko surtout pour suñu njaboot ndax ëllëg duñ fi nekk suñu njaboot fi des bu ñu liggéeyul tey bu ñu xeexul tey pour réew mi parce que dafa amoon ñu xeexoon tey pour permettre tey ñun ñu jàng li ñu mën a jàng am li ñu mën am donte astut la dafa amoon ñu xeexoon démb tey ñu du excuse ba si ñun ñu war ko téye ñu sànni ko déedéet on va s'investir et tey dëkk bi dafa am lu mu laaj république de valeur sunu parti réew mu ngor la tudd dafa am li ñu seetlu ne dafa sooxe ci Sénégal muy jikko yi ñu ne laata ñuy wax dañuy tabaxaat Sénégal dañuy defaat ay infrastructure dañuy defaat leneen ak leneen dañuy tabax nit parce que dafa am jikko yu ñu amoon mu tàmbalee dem foofu ñu indiwaat jikko yooyu donc suñu tur république des valeurs réewum ngor donc lépp lu ñu war a taxaw tabaxaat dañuy woowaat sénégal yi ñëw la ñu dellu siwaat suñu jikko yu ñu amoon ndax jikko yooyu boo gisee ci tubaab bi sax amu ko sax ci bind boo nee gor ngor jom fulla ak fayda pour nga am synonyme ci tubaab bi donc bu ñu gisee muy sooxee yoon la ñu duggaat ci làng bi xëccaat loolu boowaat sénégalais ni ñëw leen ñu reconstituer projet bu leer autour du autour de de la République des valeurs et autour du président Thierno Alassane Sall pour tegaat Sénégal ci yoonu développement incha boo waxee wàllum wàllum jikko dañuy dikkaat ci un peu ci ci làggum politique gi ndaxte euh, li ñuy dégg ci ay kàddu li ñuy gis ay jëf ute nag loolu li nga xam moom lañ xamoon ba tey yéen la. waaw xam nga xam nga moo tax ma ne dafa sooxe xam nga tey Sénégal am na li nga xam te yaa ngi koy dégg tey yaa fukki at wala ñaar fukki at ci ginnaaw mosoo ko tey kilifa diine dina taxaw wax bu pare nit ñi saaga ko xam nga loolu kenn xalaatu ko woon biir Sénégal lu tax loolu dañoo am ay ndaw yu ñu yarul mhm. te ki leen war a yar mooy nguur gi leen war a yar xam nga éducation graduelle nii la mhm. nguur gi dafa am lu muy teg mbedd bi am lu jël kër gi am lu muy jël kër gi boo fi deful li ci war pour ñu yar seen njaboot dina am problème dina métti mbedd bi boo tegul jumtukaay yi nga xam te nit ñi dañu fa nekk à pour nga yar dina am problème ki nekk ci kaw war a joxe bu joxewul wala bu deful foofu bu fa bu fa wul comme priorité mhm. lii lay jur. est-ce que du une mauvaise appro euh, appropriation du numérique moom moo ñu jural lii jéggaane loo xamante ne attanuñ ko. gis nga tey ñun sunu programme euh, république des valeurs mhm. li ñuy def yépp dañ ko basé ci numérique ndax dañoo toll ci jamono ji nga gis ñu gis ni numérique mën na defar lépp wax naa la sànq ci mbirum yit mën na yàq lu bari. gis nga nag laata mu yàq gis nga dëkk yi ko utiliser. Mhm. tey boo gisee ay Chine ay Japon. ba ñu xamee ne numérique dafay commencé di jël am doole loolu ci seen dundin dañoo yar seen population dañoo yar seen i njaboot ñun nag dañoo hérité numérique bi te yaruñu suñu njaboot donc ñu république des ba ñuy ñëw jël numérique def ko au centre de tout ce qu'on centre de l'éducation gis nga ndaw yi ba ñuy ndewoon ay tout tànk nga leen di jàng naka la ñuy utiliser numérique naka la ñuy nekki daal le digital seen téléphone portable yi lan lañ ci war a ut ak lan lañ ci war lan lañ war a moytu war a seen xam ci loolu parce que bu utiliser leneen parce que amuloo loo ko proposer lu parce que tey koo ñëw rek jox ko portable mu taal mu dugg whatsapp ak yooyu amul amuloo loo ko wax ne yow lii mën na amal njëriñ day dévier éduqué woo ko donc ñun dañoo indi dañoo centré sunu sunu programme ci numérique dugal ko ci éducation bi surtout ci éducation bi parce que éducation mooy tax ëllëg ñi ngay forme mën a jël numérique bi doxal ko comme li mu waree ba indiwaat développement ci moom donc ñun au niveau de la République des valeurs encore une fois je le dis ci un tu feras c'est du numérique exemple bu leer gis nga euh, amal ku tawat sa kër guddi dund nga ko dund naa keneen dund na ko pour nga dem ci hôpital directement rek fekk ci lal bu lal bu disponible problème di nga wër ñaar ñetti ñeenti hôpital pour am te la plupart temps da ngay dégg ñu ne ah moom da wër na hôpital finalement dafa mujj décédé mais numérique dafa régler loolu dans dans certains pays sa kër ngay toog xam ne hôpital principal chambre 3 lii 2 disponible na nga jubale fa directement numérique mën na ko même mbay mi ñuy wax même njaay mi ñuy wax njaay soble bi ñuy wax ne soble bi jël na nëpp na fii mais numérique da koy régler tey da ngay toog balaa ngaa jël sa soble fii ñu jëlaat jël jël sa soble fuuta indi ko Cambérène bii dina la wóor ne boo ñu Cambérène di nga ko jaay nga soo ko déplacé numérique da koy numérique da koy lijjanti mhm. donc ñun dañoo am ay opportunités ñoo xam ne ñun exploité wuñ ko tey république développée dafa jël lépp lu ñuy def ñu centré ko autour du numérique et gëm nañ ñu autour du numérique le développement du Sénégal sera assuré nguur gi nguur gi ñëw na dara am na ñu yaakaar ne loolu la te liñ ci gis mooy restreindre nañu réseau sociaux yi teewlu xale yi contour nañu ko donc mooy waxaat rek encore une fois ñu dañoo am une nguur gi fi nekk xamuñu li ñu am en de de de matière grise ci ndaw ñi surtout moo ma ne la tey ndaw ñi yooyu yëpp ñuy def noonu ñu créer VPN pour génne ci pour jaar am nañu xam-xam bi jox leen ay jumtukaay yi nga xam ne seen xam-xam boobu dinañ ko def pour développer Sénégal mm-hmm. mais da ngay xëy dara am nga ne xaar ma tëj. nga tëj ñu teggi kooku ngay tëj muy teggi ni mu gis nga ma jox la exemple bu leer gis nga États-Unis am na daal nu ñuy def les pirates informatiques ñi ñu wax ne ñooy dugg ci système informatique di ko pirate bu ñu jàppee bi nga tane lu ñu koy def dañ koy tëj dañ koy tëj kaso déedéet dañ koy jël ne ko kaay ñëwul kaay liggéeyal pour nguur gi parce que xam nañu am na xam-xam boo am xam-xam boobu du warul sooxe warul réer parce que doo ko jël def ko ci mbirum caacaay waaye indi ko def ko pour développement sa dëkk day ñëw donc ñun am boobu mais malheureusement sunu sunu sunu sunu régime bi Euh, orientation am feneen la ay priorité am feneen la te waroon na fi fa nekk lu accessible lu mën a nekk li nga xam ndaw yi mën nañ ko ñu def ko pour Sénégal jëm kanam ku nekk gis sa bopp malheureusement. yaa ngi jëf Mamadou Aw. merci jërëjëf jërëjëf Assane di kontaan encore euh, vraiment di nuyu waa République des valeurs di nuy waa Guédiawaye aussi. nuyu waa si sama waa dëkk ah, waa Diatar donc euh, ñoom aussi ñu ngi seetaan tout le temps suñuy émission di wax rek ne sénégalais yi aussi na ñëw autour de la République des valeurs former ci guute ki ñu nekk. Mamadou Aw njiital euh, cadre yu République des Valeurs nekkit coordonnateur bu République des ci département de Guédiawaye nekkoon suñu gan ci magazine de la mi-journée ñu jaajëfal ko jaajëfal leen yeneen mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV jaajëfal Modou Fall nekkoon ci régie bi bàyyi leen ak suñu programme ñu yendoog jàmm